waaw ñu ngi ñu ngi nuyu ñu toog ci jataay bi yépp di nuyu di remercier baax suñu partenaires yi di ki distingué ONU Femmes ma sœur une UNFPA euh, Cécile Moussi ma sœur di nuyu le représentant de Plan International di nuyu la représentante de la CDAO je le représentant peut-être de la direction genre de la CDAO de remercier un ah, représentant UNICEF, monsieur le représentant de l'UNICEF, du nuyu au salle bi ñëpp di les représentants des organisations de femmes et des organisations de filles di nuyu suñu mbokk yi nga accompagner les jeunes filles qui vont être primées tey ci bés bi nga xam ne yàlla dogal ci bés bi tey ñu fas yéene ci sargal xale yu jigéen yi nga xam ne dañu distingué wu seen taxawaay ci njàng parce que yaakaar a ne bu ñu waxee égalité comme ni nga ko waxee tembirel ñu bëgg porter la voix pour jigen ñi ak góor ñi yam ci li nga xamné moy partage yu fruit croissant Sénégal. ya xana naa bu ñu wax égalité de genre li ci ëpp solo mo ni ñi comprendre né lool fi ñu bëgg jëm moo jox jigen ñi doolé jàppale leen ba li nga xamné ne lu mu mëna jigen war ko mën. foofu la ñu bëgg a jëmale jigéen ñi defe loolu am solo la parce que yaakaar naa réew mi jigen ñi am nañ ci rôle bu am solo buñ ci ciy d'abord on fait de wàccee askan bi jigéen lañu xale yi jigéen ñi boo xoolee tey foo dem tey milieu boo dem xale yi jigéen ñoo ci ëpp ñu nekk ay jàmbaar tamit di góor góorgóorlu parce que fanaa boo xoolee suñu defee un recul en arrière dinañ gis ne bu njëkk ba xale yu góor ya ñoo nekk nekk ci classe yi ñoo ci ëppoon ñoo ci gënoon am taxawaay bu gën a bu gën a dëgër waaye tey classe boo dem dans le cycle moyen et cycle primaire jigéen ñaa ngi taxaw ñoom tam dinaan góor ñu lañ ko dàq ku ci di jàng tey boo xool sax classe yi ñu si gën a am solo ñu si gën a taxaw ci kanam defe naa boo xool jigéen ñi la. loolu nag yamul foofu parce que defe bu ñu jàppalee jigéen tam ba ñu mun a am une formation de base ëpp solo aussi moo ñu continuer cursus boobu ci loolu lañ jëm nag jàppale ci xale jigéen ñi. parce que nit ku amee disposition am capacité mën a taxaw ba mën a am yenn disposition war nañ ko jàppale ba mu jëm kanam parce que jàppale jigéen yaakaar naa moo jàppale réew mi te jigéen ñi nag li ci ëpp solo tey jii naa jigéen fi mu war a toog. moo ñu jàppale ko aar ko parce que dafa bari ay phénomènes yoo xam ne daf leen di gàllankoor mariage précoce yaa ngi fi violence yaa ngi fi loolu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne jigéen ñi dañu ci war a jàppale mooy les droits des jeunes filles def naa loolu am solo la parce que jigéen ñi nag bu ngeen aaree def ne ci ay liggéey yoo xam ne dañu mën ëllëgam si bu doon ñu doon yaakaar naa réew mi dina jëm kanam te loolu mooy vision son excellence président Macky Sall kon ñu félicité xale jigéen di leen encouragé di wax ne vraiment gis seen taxawaay gis seen seen bëgg li ngeen def gis nañ aussi seen jàppale bi ngeen jàppale aussi ay famille parce que boo xoolee boo demee ci kër xale bu jigéen moo jege yaayam moo koy dimbale ci travaux yi moo koy jàppale kon dañaan góor baax na waaye tam jigéen baax na te loolu def naa suñu réew mi xam nañ ko léegi kon jàppale suñu doomu jigéen lu am solo la mais lancer un appel aux parents aussi parce que boo demee tey ci biir kër da ngay seetlu ne dañu gën a favoriser xale yu góor yi bu dee école la dañu gën a favoriser xale yu góor yi parce que ñaan góor la ni jigéen la kon tey bu ñu amee benn googu nañ ko jox bàyyi ko jigéen bi loolu ñu ci ñaax am ci benn taxawaay boo xam am ci benn vision boo xam ne parce que boo amee doom bu góor nga am doom bu jigéen ñu nga war a may même chance pour ñu éclore seen potentialité di féliciter vraiment récipient ñi nga xam ne dañu tànn tey war leen tey Sénégal ñëpp ñu wasargal jeune fille ñu wasargal waaye am na ci ñoo xam ne distingué wu tey ci parce que éducation tey bu ñu bëggee dem vers l'égalité il faut que jigéen ñu renforcer te renforcer jigéen nag mooy nit ki boo bëggee am fu nga bu ngeen tegee teg am challenge bu ngeen dem da war a am ñun départ bu ngeen jógee kon bu war jàng jigéen war a jàng pour ëllëgam si bëgg a dem ñun faa dem loolu nag mooy éducation des jeunes fii taxawu leen ba ñu am une bonne éducation mais aussi les maintenir à l'école téye leen ci parce que en général dañu am tendance di wax ne tey sama sama doom laa tilima pour jàppale ma sama doom bu gën jàppale si ma jàpp xale itam di leen maye à bas âge loolu aussi dafay frein dafay dafay enfrein seen seen enfin seen seen taxawaay fexe ba xale bu jigéen bi tam ñu bàyyi ko ba mu 18 ans soo ko see loolu tam lu am solo la kon vraiment ñu ngi félicité jigéen ñi ñu félicité jeune fille tey seen bés la képp koo xam ne récipient à travers sa personne gis na yeneen milliers de jeunes yi si ginnaaw nga représenté tey di am tamit nag un cas spécifique boo xam ne vraiment rafetlu nañ ko xale jigéen yi nekk tey boo demee Porokhane tey daara maam jaara yi tey ñu ngi fi toog ànd ak seen muntaxaa ñu ngi koy nuyu au passage di ko jox wàccuwaayam di kontaan moom tam ñëw bi mu ñëw parce que tam góor lu mu mën tam jigéen ñi tamit danga soxla góor ñi suñu wet bu baax ñun mu ñoo dem saa góor ñi dañu xam ne fi mu jëm rek góor ñi ñu taxaw kon ñu ngi sa ñu ngi lay nuyu sëñ Mountakha bu baax di kontaan ci ñëw bi di félicité vraiment di kontaan di ziar bu baax général bi Mouride mi nga xam tey moo ñu may ëpp ñu mën dakkaarlu ak yéen sargal xam na tamit daara yi tey neex ca tam jigéen yi nekk tam ci biir tam jàng seen dina tam lu am solo la kon vraiment ñu ngi magnifier teewaay bi de remercier encore nos partenaires de remercier les ministres sectoriels de remercier vraiment toutes les organisations de femmes et de filles leaders impliquées dans cette cérémonie Nous ngi di agenda bien lancé un agenda de la jeune fille le plus important ci bëgg pour les filles dans l'autonomisation de retrouver leurs droits Les plus xam pour les filles

pour wax ne xalé yi ne ci mbedd mi interpeller na ñëpp mais ñu interpeller aussi les familles parce que papa ak yaay li ko watti doom mooy une bonne éducation parce que doom so màggee ki lay jël ci wa àddina mooy sa doom so doom boko ko war nga xam fan la nekk war nga xam ci lu mu nekk war nga ko jangal war nga ko inculquer de valeurs sûre yo xam ëllëgam ci biir dina mën nekk un digne fils dina mëna a ci awu ci si bi nga nekkee loolu nag pour ko def ko c'est un travail de longue haleine travail boo xam ne ko def en en en aval parce que dafa nekk loo xam ne lii jàppal sa doom jàppale ko xam ban daara nekk nga bàyyi sa doom mu ne ci mbedd mi yelwaan di taxawaalu mënu tari faatiya xamul fu mu jëm def naa loolu tamit mooy xeex bi ñu xeex ñu xeexuñu daara xeexuñu lislaam ñi xeex mooy xale yi ne ci mbedd mi parce que xale yooyu am na ci ay góor waaye am na ci ay jigéen yoo xam te da dem ci mbedd mi fekk ay xale yu ne ci mbedd taxawaalu te loolu vraiment du war a mën a am ko ñu ngi ñaax parents d'élèves yi téye seen ay doom ci biir mettre dans le lieu sûr encadré leen ëllëgam suñu yoo xam ne ay diñ fii ci Sénégal lañu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup